man damay am jëkkër ñu ànd man ak yow sa sama jëkkër ñu attaaya di waxtaan. Hmm. nga jékki-jékki rek ñu ne sama jëkkër takk na la wax loolu te phénomène boobu dafa bëri. waaw loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la. est-ce que tu tamit ñun ñoo doy waar. Euh, ah loolu de moom loolu moom loolu moom woor la nag. trahison la loolu moom trahison la waaye nag nañ ko teg ci xaritoo rek comme nee ay xarit lañ kay. ñu xaritoo ba nga nangu sama jëkkër ah loolu daal <laughs> ay xarit lañ boobu duma ko laal lu tax doo ko laal yaxara <laughs> nee na du ko laal man de am naa sama benn xarit boo xam ne moom mën na ma may jëkkër moom amu ci problème dégguma la de mën waaw mën na ma may jëkkër amul problème parce que nee na sama xarit la bëgg na ma suba suba bu nee bañ na loolu ma ma dakkal sama ànd ak moom ndax la parce que dama naan kooku bu dee mënoo maa may sa jëkkër kon kay suñu xarit dëgg wul parce que jàppaloo ma xarit yow bu la mayoon jëkkëram di nga sëy moom mais lu ma du ma ay wujj la ñuy doon rek wujj kay xaritoo mu tëgg Amina mii nag ah dañuy dégg xaritoo soo nekk ay Amina sunu xaritoo dagg na ah bu ko <laughs> sama xaritoo Amina jeex awa awa sa xaritoo moom waaw ndax la bu bu nobee sa jëkkër ah. te nga gën ko feros sa jëkkër xool dëgg naan féroce moom waaw waaw dëgg la waaw dëgg la waaw dëgg la nag dëgg la dëgg la nag dëgg eh? la yaakaar <laughs> jigéen ñi <laughs> ñooy jaay seen jëkkër yi ñooy jalax seen jëkkër yi seen xarit yi parce que ñooy wax seen xarit yi lu nekk jigéen ñi ñooy inventé ci ñenn ñi ngeen baal ma ci terme bi di fen hmm. di yokk di wax loo xamante ni amul ba kii nga xamante ni sa xarit la ñee la par jalousie mu ne day dugg day découvrir comme yow sa jëkkër mi ngi lay defal lii di la defal laa moom it day fexe nu mu duggee loolu mais yow yaa jaay sa jëkkër. dëgg la. Hmm? Hmm? yaa yaa ko wax loo fa warta wax. dëgg yàlla yaa ko defal promotion. bien sûr yaa ko waxal leneen ah. ak leneen. Ah, jigéen la comme la ñëw dugg. Ah, te nag buy dugg da lay àndal ak ñàkk kër bu mat sëkk. ak beneen façon nag xoolal da naan est-ce que kii. ah laa nekkoon sama xoola indi jikko ju bees tàq daal di dugg. yàq der bi nag farankulaayu. lam la xamal yëpp lam la xamal. xoolal oh. lépp lay wax sa jëkkër ba am lu mu ca yokkaat. Oh. dootoo jar dara ci biim réew. Mm-hmm, mm-hmm. faama mm-hmm. nga gis loolu bari ci réew bi nangu jëkk ñu xaritoo nga nangu sama jëkkër. mais loolu tamit ñàkk ngor la rek. ñàkk ngor rek. jigéen ñi ñun jigéen ñi dañoo war a gore. ndax sa xaritu jëkkër war nga ko seexlu daal. ci sama xel mu gàtt. sa xaritu jëkkër war nga ko seexlu mais ñun gore wuñu dañoo doy waar. dañuy toog di yokk di yokk ak di wax loo xam ne amul. est ce que yaxara tey Amina Fama est ce que tey jeeg warul maandu est ce que jeeg warul xam boppam xam fi mu bokk xam li ko tax a jóg téye sa tànk téye sa làmmiñ ci kuy sëy ci jeeg laa ko taam jéeg bu baax mhm. day téye làmmiñam mm. téye tànkam téye loxoom téye ay bëtam yor nopp garmi mhm. yor bëti garmi toog nag fa nga war a toog muy sa palaas nga fees ko dell ah feesatuñ dell fenn xam li nga bëgg mhm. xam li nga bañ mhm. Mhm. waaye léegi jéeg yu bëri feeja feesatuñ seen place li bees ci dëkk bi rek li xew ci rek dëkk bi mooy lan xool sama moroom la mu am ak na mu tooge ma bëgg ko xool sama moroom la muy sol ak la muy takk ak la muy def te lu ci bëri naxaate la rek jéeg jaa ngi naan oru 30 millions lañ takk fekk rax nañ pala euh, politique bi <laughs> ak leneen ak leneen bul xool li kenn am bul ligganti lu kenn am sa plaqué ba nga am na la doy sa la nga am na la doy sa ruy ba ngay ruy na la doy boo ko naanee moom mën laa xetti dara. gis nga dégg lu mu wax. lu mu wax c'est très important. Mm-hmm. te loolu dafa valable pour jigéen ñëpp. Mm-hmm. fi réewu Sénégal naxante bi daf fi bari. Mm-hmm. lépp naxante la. dama da bu ma la gënee napp rek yow li ma la gëmloo ngay gëmleew mhm. parce que nit ku nekk li ma la bëgg a wan man loolu laa la bëgg a gëmloo te yow laa bëgg nga gobe mhm. alors gis nga gis nga jigéen da ngay am mhm. esprit bras de fer bul fàtte yow yaa war a jur après yaa war a yar maanaam jikko bi nekk ci yow bu dee dafa oyof sa bu ñëwee esprit oyof boobu lay demee maanaam lu ko lu ñëw da koy ko fi yóbbu nit war nga mën am assise boo xam ne tey même sama jëkkër bu dee sama wujju peccoo ga or la fa yendoo man man plaqué laa demee ci xew ba loolu ngay demee ci xew ba parce que loolu laa am nit da ngay fier ci li nga am. mais c'est pas que sol nga jeesneer man tam dama war a sol jees non non loolu loolu du jeeg jeeg dëgg. mooy ki nga xam ne moo wóolu boppam. mooy nga xam ne moom moo fier ci lu mu am. armoire am même bu dee dafa yaraax lii lay deme marché lii laa am lii laay ndugg ceebu ceebu ceebu jën laay togg yow ceeb toggal sa ceebu ginaar man de ceebu jën laa am envie tey mais du ma ñëw de tourné ah yow de yaa ñàkk classe yow de sa jëkkër ji moom doo ko kii na génn xaalis bi na la jox na la toppatoo dama naan loolu sa yoon nekkut mm-hmm. sama sëy man maa koy gérer mm-hmm. da ngay am mat googu jeeg da ngay sur tous les côtés parce que buñ la influencer rek sa sëy yëngatu te sa sëy bu yëngatoo doo neexle te boobaa loolu mun na ko dem ba mu topp la ci doom yi te yaayu njëkkee comme ni mu koy waxee defee wuñu noonu ku ci nekk da nga matoon li nga doon te Amina am na koo xamante ne sax bu gudd jotee la muy dund du la ko wax ah te naan la hmm. sama jëkkër lim ma def loolu nag naxaat loolooy naxaate bi ma lay wax li ma la bëgg a gëmloo rek laa lay gëmloo mais man biir yow mënoo ko fekke mais man li ma la wax yow loolu laay namaa lu neex Amina mu toog sëyam dafa neex fekk Amina moom dee na loolu moo am ci de ci réew mi fii. Fama dégg nga lu mu wax. mais du am du jéeg yëpp du jéeg yëpp këf moo leen yóbbu de am na ñoo xam ne këf yóbbuwu leen de. Mhm. am na ñoo xam ne soo toogoon fii naan sama or bi ak sama lii ak sama lii la sax faale. est-ce que du ci yarin bi. waaw ci yarin bi la daal duñ la faale ci yarin ñu lijjanti moom ñu am rek la mhm, ñu ko jeex na. xam nga des fois damay faral di wax naan bu buñ la yaree éducation de base dafa am solo. Mhm. ñu yar la ci siraatal mustaqim yar la ci doylu wéet gore wéetaliku gore xam sa bopp xam fi nga bokk xam yow yaay kan yar la ci diine. yaakaar naa yaxara yu bari di ko jomba def. mooy li ñuy wax rek am na loo xam ne boo ko bu jiitoo ci yow lu bari da koy jombale sa bopp ndax dangay bokk ci famille boo xam ne ay faaris lañu. dañoo am lu ñuy bañ am lu ñuy rus. sa ndey jur la fam la war a juree utalu la xas utalu la lenn lu ñaaw lu dul utal la woy mm-hmm. kon boog bul yàq woy boobu. boo mënoon utal say doom woy tamit bu leen yàqal nañ respecté waat suñu bopp xam suñu culture delluwaat ginnaaw xam ñun ñooy kan xam suñuy valeur te di ko topp en tout cas daal li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ndax waxtaan bi neex na loolu wax dëgg yàlla ñu ngi nuy waan ñëpp di ziyaareen ñëpp Amina waaw jéeg buy sëy mhm. lan la war taxawaayam lan la waaw mooy sànq li ma doon comme damay rebondir ci loolu rek mooy maanaam am assurer ses arrières ba pare xam la mooy sa objectif nga dem ci parce que loo gis objectif la ci àdduna xam nga nit dangay am gëm-gëm ci li nga nekk mhm. waaw boo boo dee da ngay sëy nekk jeeg gëm-gëm bi mooy jur fi say doom ëllëg ñu màgg xam nga mhm. ñu dégg leen ci lu baax mais lu baax loolu yow yaa koy njëkkee tu mhm. vois donc euh, mais mais mais <laughs> euh, jeeg dafa war a seey dëggantaan jeeg warul yërndu rek daw déedéet waaw waaw waaw ba tey dërële ça dépend loolu moom ci ku góor ci ci góor ki góor day am volonté téye góor bu amul volonté doo fa toog bay seey loolu mooy wax ci ñun dañoo sëy ñun ñun ñun téewuñu suñu boob ñun góor ñi ñoo ñuy téye njaboot gee yëpp c'est bien boo mais tey ku buñ la buñ la dëkkalee ci kër sax du di la ko di la ko fàttali ma ba dul man da ngay torox amoo fi yaay amoo fi papa sa ñëpp dee nañ ay doom nga fi am ah loolu ku nekk góor nga. Mhm. lay dem la sax doo ko xam góor mooy am volonté téye nit. même boo fa juróom équipe nationale bu amee volonté tée la rek toog bi dina yomb mais bu amul volonté tée la dundalu la woddu la kooku kooku génn na ci charia ak charte sëy bu yàgg ci yow mm-hmm. yaa fa sa bopp